jàpp naa ni c'est un débat boo xamee ni ñi nekk ci assi jamono ji dinañu ko dinañu ko amal pour xam ndegam euh, lu ñuy waaye retrait parce que programme président Bassirou Diomaye fay comme waxtaan la boo xamee ni ku ci nekk am nga ci sa xalaat parce que je vois par exemple quelqu'un comme euh, ba ba bu forum du justiciable moom ni ala kulial faw mu am euh, kenn bi ci fi nga xam ni moom mooy conseil supérieur la magistrature parce que euh, loolu bokk na ci lu mu jàpp ni day tax ba ñu mën a éviter benn république des juges nga xamee ni on parle certes de séparation des pouvoirs am na l'exécutif le judiciaire le législatif mais donte am na séparation ci ñetti pouvoir yi mais am na pon ci ñetti pouvoir yi également maanaam c'est euh, euh, on parle plus d'indépendance ci pouvoir yi mais séparation bi c'est pas une césure nette boo xamee ni euh, ku nekk da ngay demal sa bopp kenn mënul demal sa bopp san keneen ki wala sans ñeneen ñi boo xoolee li koy firndeel pouvoir législatif ña ne muy assemblée nationale kii di président assemblée nationale moom mooy deuxième personalité de l'État et politique très souvent mu am jëflante bu muy jëflante ak exécutif njiitu réew mi ak euh, am na sax benn ministère boo xam ne moom moo yore dox diggante institution yi euh, boo xamee ni euh, dafay dox seen diggante mu indi benn pont ci diggante ñaari pouvoir yooyu muy exécutif ak législatif ci biir législatif ñu gis ni ñi ci ëpp ci ay député li ci gën a bëri ci parti politique la ñuy jógee yenn yi ci ëpp li tax ñuy xeex sax ci wàllug ay élection pour mën a am la main mise sur l'assemblée c'est parce que da ngay bëgg moom mi jiite nekk ci exécutif bi nga mën a am majorité ci assemblée pour que li ngay bëgg ñu jàllale ko ci sa wàllug programme wala ci sa wàllug projet en termes de loi ci assemblée dañ koy voté te ña ko war a voté yow da ngay da ngay namm ñu mu doon ñu doon dañ lay jege yow wala dañuy bokk ci sa eh, ci pour mën benn ndëgg sërëx ci seen diggante nga jël tamit ex pouvoir eh, bi nga xam ni moom mooy judiciaire li ci may wax pont bi mooy diggante garde des sceaux ñi nga xam ne ñoom ñooy les acteurs de la justice ou du système judiciaire ak ñi nga xam ni moom mooy exécutif le ministre de justice ci yoon il est juste benn genre administrateur pour la bonne marche ci wàllug yoon de la justice ou l'administration de la justice ni ñu koy waxee euh, ci seeni terme mooy fexe ba justice la mu soxla ci wàllu jumtuwaay ci wàllu euh, mu mën a jàll seen diggante lu mu war a jooyanti mu jooyanti ko ci pouvoir exécutif bi nga xam ci la bokk est-ce que dañu war a génne carrément nettoyer Euh, conseil supérieur de la magistrature génn ci président de la république génn ci ministre de la justice euh, ñu dem seen demu bopp wala dañ ci war a bàyyi koo xamee ni du ñëw am pouvoir de décision mais dañ benn pouvoir boo xamee ni wala benn taxaw boo xamee ni day mën a tax ba di juge yi wala magistrat yi bañ a jàpp seen bopp ni dañu nekk parce que nul la loi comme niñ koy waxee et nul n'est censé ignorer la loi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy liggéey di ay magistrats. beneen li nga xamante tamit war nañ ko fësal mooy ba léegi ci suñu architecture ci constitution dañu ne ni le président de la république nomme au pouvoir civil et militaire magistrats yi ba léegi ci civil yi lañ. militaires yeeg yooyu gis ñu ne constitution bi loolu la est-ce que dañuy soppi tuuti constitution bi pour que yenn ci ay nomination ñu ne ni léegi ci lu jëm ci wàllu magistrature ak ni ñuy administrer ñoom seen seen këru liggéeyukaay ni pouvoir exécutif président amatu ci benn yoon loolu tamit c'est un débat boo xam ne je pense que avec le euh, l'ouverture de ces assises puisque je pense qu'ils en ont pour six ou huit jours dinañ ci mën a waxtaan te peut-être que ña fa nekk doon ay ay ay puristes doon ay spécialistes ci wàll woowu dinañ ci mën a indi euh, xalaat boo xamee ni mën na am euh, mu indi coppite parce que li tax surtout ñu koy bañ surtout Birahim parce que jon bokk na ci événement yi fi mujjee xew à chaque fois bu décision tukkee foofu dañuy wax que ni le de président moom moo nekk ci ci ci gannaaw di mm-hmm. di am na ko ko wax je pense démb mm-hmm. ci ci yi nga demoon euh, c'est parce que ci yenn événement yi parce que ay homme politique ou femme politique ñoom ñoo ci nekk mais chaque jour magistrats yi rendre ay décisions de justice boo xoolee ci euh, en matière commercial par exemple civil ay nit ay téeméeri yoon dina am ay ay décision yoo xam ne ma dañ koy rendre doo ci dégg fii mi amee coow mooy ci lu jëm ci wàllu ay fait wala ay ay acteurs politiques ñu jàpp ni am na la mise de l'État xam nga ñi doon wax démb ne ni euh, dañoo jël loxoy nguur teg ko ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy justice pour régler des comptes Euh, tey ñeneen ñi nekk ci beneen côté bi di opposition bi ñu ngay tuumaal la même chose nguur par exemple sur l'affaire Bah Diakhaté ak euh, imaam ndaw ne nii nguur moo teg loxoom ci wàllug yoon pour éviter nag mu am benn quiproquo boobu wala benn jafe-jafe entre loolu moo tax ñu ne est-ce que du ñu dindi conseil supérieur la magistrature euh, présence su Euh, président de la République wala ministre de la justice garde des sceaux mais faw mu am benn représentant gis na tey bu ñuy jël ci wàllug football peut-être Cheikh moom si gën a xam dara mais bu ñuy jël même ba ci wàllug li nga xam ni moom mooy fédération xam nga dañ naan FIFA moom yoonu gouvernement nekku ci mais seeni réunion di nga ci gis benn représentant ministre ministre des sports pas pour mu am dogal bu mu ciy joxe mais pour mu mën a joxe xalaatam te pourtant tey bu ñuy nommé euh, entraîneur bi ah dina am décision bu jege ci euh, président donc ci ci politique alors que FIFA dafa ne non ñun si lu jëm ci suñu fédération ak euh, muy fédération football ci Sénégal wala ci Cameroun dégg ngeen coow li am jamono ji ci Cameroun dañ naan ni non ñun dong ñoo moom. gouvernant bu ñu war a te dara la preuve bu fekkee ne gouvernement dafa am lu mu teg ci euh, fédération yu mel noonu FIFA mun naa sax sanctionner dëkk boobu ne ko bokkatoo ci compétition nangam c'est exactement la même chose ci lu jëm ci wàllu conseil supérieur de la magistrature wàllu justice parce que justice ñi def justice ay doomu sénégalais ñan la ñuy rendre justice ay doomu réewum Sénégal peut-être bu amee yeneen peut-être au plan international wala projet tamit ba léegi dañ koy rendre mais ils le font au nom des sénégalais au nom la société sénégalaise procureur lan lañ koy wooye c'est l'avocat de la société mooy du bu sénégalais maanaam taxawaayam sax dañuy jàpp ni bu taxawaayu sénégalais yi parce que moom représente wàllu euh, ci biir biir euh, tribunal euh, donc bari waxtaan yoo xamee ni je pense que ñi ci nekk jamono ji ay spécialiste a ngi ci un sénégalais lambda ku mel ni man ku xamul dara ci yoon tamit mu ngi ci parce que am na xalaatam bu mu mën a joxe ci loolu je pense que conclusion yi bu ñu ci euh, on saura euh, à peu près est-ce que euh, la décision du président jëloon pour mu retirer wala mu am retrait ci conseil supérieur de la magistrature dina ci fës ou pas. d'accord lecture bi ñu mën a def cher par rapport ak nga xam ne moom la le président tenir démb foofu ca jëm si jëm si dialogue bi